madame va s'en occuper. Ah. Mm. d'accord on mettre au bon budget de campagne. yaay nekk sama adversaire ci terrain su ma waxee x nga wax y mu tàng jër mais après le soir am na fu ñuy daje. ok. doon affaire bu doy waar. bul fàtte Sénégal la mu nekk. nit ki lu mu daawul def ba jékki-jékki di ko def point d'interrogation nañ ko posé. su ma la wax ban heure moom nag na réglé ndax la mu am amuma ko. la mu ñam ñamuma ko la nga ko defal defaloo ma ko man maa ngi nii ne faax di ci dabe laa toll nii de dabe dabe daal laa toll nii bu dee man doom fee mu nekk dina fa dee ndax fii ma toog duma fi jog mais léegi jigéen ñu bëri defutuñ loolu te yow yaa ngi bëgg a mel ni ñoom je ne veux plus entendre parler fii ci sama kër de de Dan et de mariage ok que ça cesse